السلام عليكم ورحمة الله بكي نلير نجد لين زيار أنبال حق دي لانبال إنيان يعني برمب سبحانه وتعالى مبالي نجغل إنيوتي مسألة رقم 124 يجانغ الأوقات التي يحرم فيها التنفل وقت يخمني دفع حرام ينافلت مذهب إمام مالك من يحرم التنفل في الأوقات التالية واحد حال طلوع الشمس وحال غروبها اثنين آه، أي, إلى أي مدة ما بين ظهور حاجب الشمس إلى أن يكتمل ظهورها في الطلوع ومدة ما بين بداية غياب قرص الشمس قرص الشمس إلى أن يكتمل غيابها في الغروب أما عند الزوال فإنه ليس وقت التحريم اثنين حال خروج الإمام لخطبة الجماعة على العيد وحال الخطبة وإذا أحرم المتنفل بالنافلة والإمام يخطب جهلا أو نسيانا لا متعمدا فإنه لا يقطع الصلاة إذا لم يكن جالسا قبل التنفل الله أعلم بالصواب مسألة نمرة 124 متيمرة نعرفك نينت الوقت حرام النافله bokku na ci jamono ji jant bi di fenk ci suba ci suba si ak buy duggu wala ci la bokk waxtu yooyu dafa xaram la ci mazhab imam Malik ak waxtu juma jamono ju imam bi génnee ba toog ci minbar bi ba mu des tabaski ak korite waaye nag bu da nga ñëw juma fàtte ba tàmbali naafila su boobaa da ngay yeggali julli gi i jàngalul ma fiqal ibadat yàlla mooy kaw te xam lépp lu jub bu ñuy tànk dars bi rek ci mazhab malik dafa am waxtu yoo xam ni dañoo tere ku ci naafila dafa xaram am na ci yoo xam dañ ko sib nag mais ñu jàng ni dafa xaram bokk na ci jamono ji nga xam ne jant bi day génn ci suba gi jamono jooju da ngay bàyyi ba jant bi génn nga doog a naafila xaraam na ñu naafila ci ak buy dugg it ci timis gi da bàyyi ba mu dugg ba ba ba gisatoo ko ngay nga julli timis daal di doog a naafila euh, jamono ji nga xam ne imaam dafay nekk ci jumaa bu ñu noddee ni euh, ñuy wax zawal ba mu génn ba toog ci minbar bi mooy chaise boobu muy toog wala muy taxaw pour xutba su boobaa waxtu diggante boobu xaram na ku ci naafila waaye nag waxuñu jullig it ak korite tabaski nag bokku ci ki xam ne it dafa dugg ci jumaa ji daal di tàmbalee naafila fekk imaam ngi xutba ta benn xamu ko wala mu fàtte kooku boobaa day continue julli gi du ko dagg dudul nag mu doon koo xam ne dafa bàyyi ba imaam ñëw toog ba war a tàmbalee xutba muy doog a ju julli loolu mooy suñu dars tey ku ci am eh, yan yàlla defal dégg ak topp ku ci am lu muy leerlu rek na koo tappe ci numéro bi suuf incha allah buñ ko xamee dañ ko tontu subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh